boo gisee mbir nga xeex ko nga def fukki fan ñaar dangay def da ngay évaluer da ngay def da ngay évaluer li nga def lan la ndax jur na ay euh, yokkute wala boog ay jafe-jafe moo ci am mais boo defee boo defee tey euh, boo ko évaluer di nga xam ne yokkute am na ci ndax lu tax zone yi nga xam ne def nañ ko fa muy région de Dakar té booy xool région de Dakar ak région de Thiès nag ñoo gën a nit bu nu waxantee dëgg ak région de Diourbel té région de Thiès bo xolé département de Mbour cas yu bari man département bi ma jógee bëri na fa ba tay ji sax Mbour bari né ka parce que bo xol ay dëkk lu yoo xam ne booy xool ay dëkk yo xamné nit ñi dañ ko fréquenté Mbour tay bu fa nekk ci population ci département de Mbour dafa nekk ci population dafa dafa bari ay millions de personnes ñoo fa dëkk comme ay millions de personnes de région de Dakar donc bo boo ñu ñun région de Thiès sax Mbour moo gën tax suñu région de Thiès parce que dañu gëna bari donc état d'urgence bi parce que bo xolé Mbour boîte de nuit ya nga fa ci salé bo xolé xoolee Mbour ba danse ya nga fa plage ba nga fa dafa bari ay milliers yo xam pour attraction la quoi fi nga mëna démé demee ay restaurants yu am solo yu démé non yoy nak nit ñi ci lañu gëna dajé di gëna walanté parce que département de Mbour bo xolé département la ko xamné lo loo soxla ci wàllu hôtel mu nga fa.

ñu ngi dox dugg restaurant yi di ànd di lëngoo yooyu nag dafa am effet parce que yooyu boo ko xamul wala mosoo ko gis da nga defe ne président du koo jël ci coobare déedéet mais du koo jël xam ne yërmande lay doon ci askan wi parce que bu ñu leen toogloo seen kër yi am naa yaakaar ne feebar bi doo ko doon du wàllante lu gaaw. bu résultat amul woon tey boo ma dëkkee micro bi dama la naan tey jarul ñu koy def mais dañ si gis résultat boo xam ne résultat bu am solo la parce que résultat mooy lan mooy bu fekkonte ne tey gis nga ne tey Sénégal euh, cas yi mu ngi yokk ci yeneen région yi. kon yeneen région yi bi nga xam ne ay région la yow wax naa la limal naa la ko léegi mais région yi nga xam ne tëjoon na leen di nga xool ne bees na wàcc na wàcc boo xamante ne nii gis nga ne alors que ne bu ñu ko continuer fii ak juróom-ñetti fan danañ gisaat mu gën a wàcc insha allah rabbi bu ñu toogee juróom-ñetti fan wàccul nag su boobaa di nga xam ne kon amul njëriñ mais am njëriñ bu mu am njëriñ dëgg mooy wàllante bi ci boo xoolee tey boo ko jàngatee ñi nga xam ne ñooy xëy seen i bureau ñooñu mënuñoo wàllante parce que kenn ku ne ak la di nga raxasu mais wàllante bi fan lay amee ci restaurant yi ci danse yi ci baar yi ci xew yi ci yooyu la gën a mën a gaawe wàllante parce que fan la dem di lëngoo di bokkante kaas di toogante ci taabal yi ndaa nga jóg ci taabal bi keneen ñëw toog loolu moom am na solo man li ma li ma doon gën a gën a li ma doon gën a gën a def joxe ci conseil mooy li nga xam ne mooy école yi école yi nañ ci gën a góor góorgóorlu ndax xale yi booy xool tey xale yi protégé wu noe man waxante dëgg xale yu bëri tey boo école duñu protéger wu wala yu demee noonu nan ci gën a concentré wu parce que xale yooyu tey foofu catastrophe métti mën na fa mën am foofu nañ ci jël ay mesures aussi pour mooy gën a jox xale yi ay matériel gën leen a euh, gën a respect mesure mesure barrières yi te keroog maa ngi koy wax euh, yaay Thiès bi mën na leen élèves yi nga xam ne 700 la ci école wala 7 90 euh, ci classe yooyu aussi nañ ko nombre de yi ne ci classe yi nañ ko gën a wàññi ba nga xamante ne nii bu dee double flux sax day ñëwaat mu ñëwaat mais nombre yooyu daal da gën a wàññeeku daal yooyu ñu ngi ciy liggéey au niveau de la commune de Ngexo pour gën ci waxtaan ñi nga xam ne ñooy e, euh, pour que mesures yooyu ñu gën ko respecté ci xale yi nga xam ne ñooy dem école di ñëw ñu gën leen a woo waxtaan ñoom xamal leen ne da leen toog fu sori classe yi nga xam ne dafa surpeuplé ñu gën ko wàññi loolu am naa yaakaar ne semaine bi man dana doon sama liggéey te loolu yëpp dimbale président lay bokk parce que président tey nee naa la borom yërmande la tey koo xam ne askan moo ko ñor bu ko neexoon tey tëdd nelaw mu ne alors que ne askan bi ñoruma te bu ko defoon itam dañ koy jam mais tey dafa jóg ne sama askan bëgguma kenn dee sama askan bëgguma kenn loru sama askan bëgguma kenn feebar moo tax lii yëpp mu di ko def ku la ne nag sangul sa taat la bëgg loolu nag ma ngi ñaan population bi ñu dimbali ci président Macky Sall ci liggéey bu moo xam ne kàmbali na ko ak ministre de l'intérieur ak le gouvernement ak gouverneur yi ñu gunge leen respecte mesures barrières yi ba xamante ne lii lor gi du mën a yaatu